est jàpp nga ne Karim Wade dina ñëw pour concourir à cette élection Karim dafa am ay atout ci élection bi di ñëw atout yooyu bokk na ci papaam papaam ci ay atoom la bokk électorat PDS yi nga xam ni PDS lañu mos boteel voteel ci ay atoom la bokk rapport bi électorat murit maanaam murit yi waxte rapport bi ñu am ak papa ci ay atome la bokk le fait que ñu bund xatal ko génn ko réew mi parce que loolu atu psychologie bu am solo la Sénégal bu ñu la bund xatalee wala ñu néewal la doole loolu ci ay atome la bokk donc élection bi ñëw moom dafa am ay atu élection am la mais man li ma gëm mooy moom bëggul ça ne waaw parce que ma no dama yaakaar ni bëggul parce que bu fekkee ni bëgg nga amay atu nga gëj ci réew mi réew mi gëj la gis nga am lu bari loolu leen war a wax bu élection boo xam ne am nga carte boo war a jouer ñu rendre la éligible boobaag léegi war a mat weer ñëwoo mais màggal si rek bu ko Karim Wade defoon ci est-ce que tu imagines màggal si rek bu jëwoon rek jóge kii ñëw màggal si rek. li muy def ci boppu électorat murit bi xam nga c'est-à-dire di njëbb si waat Sénégal ñëw rek jaare la ko ci màggal bi tu vois donc xam nga maanaam li mu am ci addu ci élection bi boo bari mais da ngay mel dafa mel ni moom bëggul yëf yi mais est-ce que duñu def un remake de 2019 c'est que le PDS bañ a dem bañ a am candidat mieux encore PDS bañ a am candidat dem en alliance dès le premier tour avec Benno Bokk Yaakaar. waaw mais kon bu doon loolu seen xeex yi yëpp ñu doon xeex depuis des années lu muy jariñ kon parce que am na ay waxtaan de. ah non waxtaan moom bari na te yàgg na waxtaan yi bari na te moom maa ko njëkk a wax. ci benn médecin la tàmbalee après di law di law di law waxtaan bi moom bari na te yàgg na. te dafa mel ni léegi mu léegi ñu yegg ci cappaandaw la de. <laughs> waxtaan bi bari na te yàgg mais waxtaan yi sax mënul tee mu nekk candidat au contraire dafa war a nekk candidat en cas de deuxième tour ñu xam yenn alliance la def ñambaas yàqul sa.